bawa assalamu aleykum mbokk yi dama bëggoon amal ak yéen waxtaan bu gàtt te waxtaan bi dafa naa day basé wu ci intérêt général euh, boo déggee bi ñu tàmbalee ba léegi ci combat bi euh, ñuy wax rupture dafa naa rupture boobu doomu sénégalais yu bari am na luñ ci bàyyi xel waaye am na aussi peut-être ñun ñu bari loo xam ne dañ ko cee dese comprendre euh, rupture nag boo ko déggee mooy doxalin bu baaxul donc euh, sénégalais yëpp jël seeni responsabilité vraiment ñu fal ay njiit yu bees te bi ñu falee njiit yooyu aussi dañu ne dañuy jox njiit yooyu volant bi donc ñu bàyyi leen ñu doxal ba ci doxalin boobu gis nañ ko ci wàññi dund gi wax nañ fi mbirum cent jours euh, président Bassirou Diomaye fay ñu wax fi euh, ay fu ministre euh, premier ministre Ousmane Sonko ak yeneen waaye fan yi dafa am kàddu yu am solo yu jib te lu tax ma ne am solo Euh, dañuy wax ci mbirum éducation ndax éducation ku ko dégg côté bi ci xaar sax du côté bi gën a important mais éducation mooy yarin yarin boo ko déggee bokk na ci njàngale ndax ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor suñu institution yi dañ leen jàngal dañu leen éduquer dañu am benn éducation bu ñu am te ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy suñu docteur yi ak yeneen yi yëpp donc éducation bi euh, ci lepp ci loolu lay tënku danaka ci gàttal éducation moy baasu lepp moy njang moy baasu lepp man mi ngeen di waxal tey euh, produit wu école catholique la ndax man ma ngi jangé ma ngi tambali sama étude étude primaire fele ci Saint-Joseph école Saint-Joseph Bouvelingara. Euh, donc man fa laa tàmbalee sama njang danaka fa laa ba CM2 euh, fa laa après continuer dem jóge fofu dem sixième donc euh, donte jaar naa ci bir jar jar bi parce que amoon nañu fa année blanche donc pour reprendre dama mujjé dem école 2 fa laa defee sama entrée en sixième voilà donc dañu don ay sénégalais.

pajukaayu réew mi moom nga soxla anka bu ay feebar ak yooyu amee waaye nga ne yow ginnaaw loolu yëpp yow ci l'école yooyu da ngay am chart boo xam ne day wute constitution bi ba mu am ay doomu aadama yoo xam ne da ngay am xaj ak seen voilà mooy lan mooy tey dina am ñoo xam ne dañ leen bàyyi ñu muuru dinga am ñoo xam ne duñu muuru di nga am ñoo xam ne dinañu sol ay jupe di nga am ñoo xam ne dinañu takk ay croix di nga xam ñoo am ne dinañu takk naa leen wax dara déjà loolu ma leeral ko ñun ci suñu école yi fii Amérique laa wax Amérique ñun ndeysaan ci constitution bi aussi dañ ci def freedom of speech freedom of euh, religion ak freedom of expression yooyu yëpp am na ci maanaam religion bi nga xam ne moom nga gëm boo bëggoon julli Maison Blanche sax man nga dem ci koona ci maison blanche bi nga taxawal julli-julli rawatina ci école yi man mi ngeen di waxal dama yor ay doom fi ci ay école yoo xam ne du ñu ay jullit waaye waxtu julli bu jotee jox nañ leen néeg bu spécial boo xam ne sama doom yi mën nañoo dem ci néeg boobu julli ci heure école nag laay wax waxuma sax bu ñu wàccee parce que bar la plupart école la leen di fekk donc ci biir loolu yëpp Amérique doon réew moo xam ne vraiment nangu na ko léegi nag ma ñëw ci kaawu France France il faut nit ñi xam ne France toujours ci tappale lay dox ndax France bañ ko xamee ba léegi lépp luy tappale rek moom ci loolu lay dox ak tuutal ak foqati ak ak yelleefu doomu aadama ndax rawatina boo leen xoolee tey ci Afrique France rek moo fa des comme pays colonisateur bokk na ci réew yu ëpp oor ci àdduna bi te suufu France amul benn ressource naturelle. Patriotisme bi ngeen gis mu xew tey ci suñu réew yi te mu bàyyeekoo France defe naa li ñuy ne ful la mooy jaay Dakar wala kaay ma ñam jeexal ko il faut ñun suñu njiit yi mat ay njiit jël ay matuwaay pour mën a jànkonte ak France neew ma jaayante doole waaye jànkonte ak France pour won leen ne ñun dañu am fulla am fayda voilà France ñoom def nañu seen ay loi satan France français buñ ko nango lolu sen coobere la loi France warul appliquer Sénégal lolu sama mbokk chrétien yi ma gis ci suba ba légui ci poste yi ñu def ngén di parlo di xex di tëbaka dal yaakar né li guerre la entre islam ak christianisme c'est pas le cas il faut ngén arrêter lolu dans une société amna toujours ku minoritaire ak ku majoritaire te Sénégal bu ñu xoolee xam nañu ne jullit yi ñoo fa majoritaire Sénégal tey euh, am na benn maire boo xam ne sax bëgguma tudd turam ndax bëgguma créer polémique est-ce que papaam du le premier exporteur de la de bière au Sénégal te dégg naa ci bière boobu dégg naa ci yeneen ay polémique yu bari waaye loolu dañ ci sori dañu bëgg rek ñu jël encore waxu abe bi ñu def ko en contexte abe kàddu yi mu yëkkati bëgg a tuutal suñu njiit yi jaarale ko ci ñi ko ngemb te ñu xam leen lool du lu rafet te du lu baax ci réew mi donc dañu bëgg ñun suñu njiit bu baax boobu la président Ousmane Sonko abe bi xam ne dafa bari ay nit ci ay ci réseaux sociaux yi yoo xam ne dañ ko gëm te dañ koy dooleel te xam nañu ne du tooñ

amu ci benn parparloo amu ci benn parparloo ni ñuy traité doomu jullit bi noonu la ñuy traité doomu chrétien bi dafa baaxul rek ñuy dem ci ay école ñuy tànn ne ah doomu aadama yi waruñoo def li yeneen doomu aadama yi ñoo war a def lale lu luwaawu école mooy tey par exemple nga ñëw ci école di tux wala di fa naan sàngara wala di fa def yoo xam ne vraiment méngoowul ak li nga xam ne moom mooy règlement intérieur mais quant à ay mbiru personnel jigenu julit muru ci ñu bari ci ñom dafa melni ni say awra suturlu Legiobone, yow bo nee jigenu julit yow bu la neexee nga ñew suñu école yi dindi sa mourid wala nga baña ñew donc tu dis que dans nos territoires fay indi xaj ak sen te warul demee non warul demee non de parce que lolu day indi ay jafe-jafe ci surtout réew mu melni Sénégal donc abe sa kàddu yi jekkul xam nga ñun amna lu bari sax lo xam ne nañ ko yëkëti jëmale ko ci church waaye déedéet dañuy def différence entre church ak state te on ne veut pas mettre le président Sonko en mal avec la population chrétienne du Sénégal ndax xam nañu ne bari nañu ñu bax bari nañu ñu jub bari na ñu ñoo xam ne vraiment dëgg rek moo leen neex waaye aussi bari na ci ñoo xam ne dañoo bëgg a polémique te defe naa abe bi ku topp ba ci biir di nga fekk ne am na lu nekk ci ginnaawam beneen lobby bu nekk ci ginnaawam boo xam ne sanaar n'a rien à voir ak voilé donc dama gëm ne vraiment war nañu am cër ci suñu diggante respecté wante joxante cër ba vraiment ñu mëna doxal suñu réew mi ci jamm suñu école yi mëna ubbi ci jamm xalé yépp ci ak salam pour baña créer ben polémique parce que dinaa leen dànkaafu de gis nga cette nouvelle génération de sénégalais cette nouvelle génération de sénégalais ñu nous ku leen note on ne sera plus d'accord de laisser quelqu'un nous dicter comment vivre nos vies et président Ousmane Sonko il a très rapidement compris cela ñun wax nañ leen ko ba ci suñu dëkk yi ba suñu élu yi gis ngeen tey ministre buy nommé nit ñëpp jóg dal ci kawam ne déedéet d'accord ñu gis ngeen tey DG buy nommé ñëpp jógi dal ci kawam ñu gis même <coughs> donte mën naa le président sax yenn saay mu def ay ay situation yoo xam ñun ñëpp dañuy ne d'accord ñu

ba ci yenn kilifa diine moom am na kenn ku ma dégg vraiment moom li mu doon wax mooy voilà nit ku ne mën naa yar doomam fu ko neexee après je me suis dit qu'il a passé à côté il n'a pas compris le message parce que message bi du mbirum école coranique ak école française c'est pas ça le message parce que école Toubab, maanaam muy langue du langue colonie bi nga xam ne moom la ñuy jàngale Sénégal danaka mom mo upp doole école coranique Sénégal du réewu charia laïque donc waaw d'accord ku bëgg yobbu domam man nga ko ku ko bëgg école yobul. mais les deux débats ne sont pas euh, euh, pareils waxuñu ci mbirum école coranique ak mbirum école euh, français école nga c'est des écoles privées françaises yo y dañu bëgg a ay charte indi situation va nous faire mettre en mal en tant que population débat bi ci rek débat dafa parce que éducation ministère de l'éducation nationale mom curriculum bi ñuy ci Sénégal curriculum bi donc école ben charte indi ne voilà élève bi man na sol chip def lu ko neex ci manière bu ko neex élève amul sol bu mat du justice ça c'est de l'injustice te waruñu ko nangu te ñun dañ ko bañ ci Sénégal parce que li bañ dañuy bañ ak sibir Sénégal dem tollu hamne, xamné day am ay jafe parce que pourquoi comme ni ma leen ko waxee man école mission laa jàngee sama doom wala sama doomu xarit nekk école mission ñu ne voilà warul muuru dañ ko fay génnee dañ ko fay dindi parce que dafa muuru voilà moom waratul ñëw école mission su leen neexul yóbbu leen ko école pour pourquoi loolu te école mission bi nekk ci territoire sénégalaise nekk ci kaw suufu Sénégal maa ngi fàttaliku sama benn tante ndem si yàlla tante ndey boobu HLM bu doodee la ñu dëkkoon tubaab ba sax dafa xawoon yëngatu tuuti ndeysaan bi ñu tubaab yi da dafa am tubaab yu raciste yu dëkkoon foofu maa ngi fàttaleku tubaab yi am na benn mal frappe boo xam ne daloon na leen suñu diggante ak ñoom mu dem akki leen muy xuloog ñoom mu xas leen ba ñu ràpp ne leen fii du place tubaab les tubaab bu fekkee da ngeen bëgg a def seen réewande bi ngeen yóbbu ko ci seen réew te loolu laa gëm ne moom mooy indi affaire ecole bi tamit Si les Français veulent faire appliquer les lois françaises, il faut les amener en France. On n'acceptera pas que les lois françaises s'appliquent au Sénégal. Le Sénégal n'est pas la France. Vous ne payez pas nos impôts, vous ne payez pas nos salaires et vous, ne vous occupez pas de notre nation. Le Sénégal est le Sénégal et la France est la France. Donc, de me gommer, ñun en tant que sénégalais ñoo war a am fulla bu tolloo vraiment ñu taxaw ñu jàppante ñu doon benn ñu bañ a indi benn par parparloo bañ a indi xajj ak seen parce que les chrétiens c'est nos et les musulmans c'est nos frères bañ nañ ko ba ci ñaari aaya yu mujj yi ndax damay bañ toujours di indi ay waaraate ci mbirum euh, maanaam euh, bu may def ay live ak yooyu du ci parce qu'il y a la politique il y a la religion je veux je veux faire la différence des deux choses mais boo demee ci ñaari aaya yu mujj ci baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli La nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qaalu samina wa atana gufranaka rabbana wa ilayka almasir donc boo xoolee daf lay wax foofu ci ngëm pour nga don ku gëm yalla sax il faut nga gëm aussi ses livres ses religions et ses anges you have to believe them bo gëmul livre yalla yi gëmulo malaakaam gëmulo gëmuloo comme on croit que nabillahi isa est un de nos prophètes aussi donc danaka yow sa ngëm yalla des donc je pense que lool yëpp buñ koy wax c'est pour rek yalla même ci alquraanam bi dajale nañu def ñu ben famille yàlla newul kuy chrétien bokkuloo wala kuy juif bokkuloo parce que yàllaa ñu indil nabillahi Moussa comme même yàlla boobu moo ñu indil nabillahi Isa donc day foo nañu jéem lépp lu ñu man pour jéem a dajale jéem a doon benn say jéem a bañ a indi xajj ak seen bu ay kàddu jibee ñu jéem a xool avec sagesse naka la ñu mën a lijjante boobu ba mu ratax au lieu indi ay cadeau yu polémique di indi ay jafé jafé suñu digënté ndax tay moi j'ai des frères chrétiens xam nga Sénégal doon na famille bo xamné bo xolé ñun ci suñu famille am nañu sax ay cousins chrétiens et j'en suis sûr que de la même manière dans la famille Sonko bo xolé man ñaata Sonko la xam ay Jules Sonko ay nangam nangam ñaata Sonko la xam yoo xam ne ay chrétiens lañu comme y a y a d'autres familles aussi quoi au côté cousin di nga gis ne am ay cousins chrétiens am ay xarit chrétiens donc pour moi, ce n'est pas le moment de polémiquer sur ça Et le plus graaw sax est-ce que xam ngeen ne issue wu voile je man bu ma ci bàyyee xel une école libanais la dég moy moy appliquer loi bi Sénégal ben école libanais libanais hein, ce n'est même pas euh, école catholique wala nangam parce que catholique yi ñoom dañuy voilé voile parce que les sœurs ñom dañuy def euh, sen voile les sœurs elles font des voiles parce que ñun avons nañu sœur sœur Antoinette ma mère ma mère ak yenen xam nga amoon nañu ay sœur ay père Laurent amoon nañu daal lu bari lo xamné ne jàng école catholique ma nga fa donc pour mon frère et sœur encore avec mes petits mots euh, kaddu Indaw, ndaw yi laa leen bëggoon yëkkati indil leen ko pour ñun ñëpp ñu nous benn ñu ande nous benn say ñu ànd au Sénégal nous ande bu rafet ande au ngor voilà te tek ci rek force restera au peuple d'accord mais aussi la force restera à la loi parce que peuple mo yor kaddu d'accord mais ci peuple boobu tamit ñoom ñoo tànn ràññee indi seeni ay gendarme ak police ak euh, juge justice pour ñu appliquer leen ay loi donc gëm naa ne ñun Sénégal benn bopp la kenn waru koo mën a xar ñaar te war nañoo ànd doon benn say xam naa ne xol yéeg nañu torop voilà xam naa ne xol yéeg nañu waaye nañu fexe lépp lu ñu man and don Ben baña indi problème parce que mbiri xol yi yéeg na waaye dafa def nak ndaysan le le premier ministre président Ousmane Sonko sa bu waxan ay cadeau dañu daan genn pour indi ay leeral ak ay farampàcc ci cadeau yoyu té comme nonu ñu ko daan défé donte légui peut-être vitesse bi xawna wañé ko touti ndax situation oblige waye ñu ngi ñaan yalla mu continuer ñomay katan bi ñu continuer jëlat cadeau yoyu diko indi ci plateforme ni mu gëna rafété té ñi ko mëna a jëriñoo voilà donc vraiment ñuy ñaan rek encore une fois suñu frères chrétiens et musulmans gis na seeni commentaires yeen ñëpp ci 1 Million marche bi tay on n'est pas vos ennemis on est vos amis on est vos frères wuñu ak yeen ndax injustice bi bu doon yeen lañ ko tek tamit on va sortir et vous protéger de la même manière la loi bu changé ñu ne kuy képp kuy dem école ndax quatre-vingt-dix-sept pour cent musulman lañu il faut nga voilé wu wala il faut nga sol jupe bu gudd wala il faut nga sol robe bu gudd tamit dañuy ñëw ne ah déedéet warul demee noonu parce que am na ñoo xam ne seen religion obligé wul loolu donc euh, il faut ñu am benn xalaat bi rek te esprit esprit de dépassement euh, abbé bi aussi ngeen comprendre ko xëy na Peut-être il n'a pas bien écouté les paroles sages du président Ousmane Sonko. Ou il n'a pas bien compris quand il réagissait. Donc, may ñaan rek le président Ousmane Sonko il a pris la décision sage que la constitution sénégalaise nous a dit et cette décision sera appliquée par le ministère euh, euh, de l'éducation nationale et nous avons aussi la loi sénégalaise donc ñu ngi sante ñep di gërëm ñep di bal ñep ak di balu ñep ak bu fekkee kaddu yiñ fi yëkëti dafa doon ay kaddu yu déplacé wu ngeen jéggal ñuko euh bu dee aussi ay kaddu yu baax la ngeen xamné ci Yalla ak yonentam bu tedd bi la ko donc ñu ngi sante ñep di gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bonne soirée à tout le monde merci